jërëjëf mbokk yi bàkk ba jib na wasaara làmb tàmbali na dégg ngeen générique bi macha allah ñuy siyaaraat bu baax a baax a baax fépp fu waay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew ñu lay jaajëfal fekk la fi nga toog ne la jàbb loxo di lay siyaar di la màggal di la noosoo di leen béggee bu baax a baax a baax rawatina yéen ñi nga xamante ni euh, seen yitte yëpp yéen a ko bàyyi ci wasaare làmb euh, lépp lu ñu dugal ngeen seetaan ko di ñu commentaire di ci waxtaan di ci wax. li nga xamante ne mooy seen xalaat tey nag ñu indiwaatal leen jàngat làmb jàngat làmb ñu fas yéene waxtaanee tey ci làmb bi nga xamante ni euh, bu ñu naan dëgg dëggi làmb moom moo tax bu ñu naan bëre dóor xëy na làmb la boo xamante ni ñun ñoo ko moom waaye li traditionnel tamit kenn demul mu des parce que mooy euh, làmb joo xamante ni day dajale téeméeri mbër ak lu teg ku ci nekk di bëre benn par benn benn par benn benn par benn ba kenn kooku jël finaal bi ñu bokk génnee ci benn porte coow du am histoire du am xuloo du am amateurs yu kontaan euh, ñi ñëwoon ci làmb ji kontaan euh, ñi nga xamante ni dañoo ñëwoon pour bëre tamit kontaan donte dañoo ñàkk sax dañuy kontaan xam ni compétition bi moo mel noonu ku ko gañe rek da ngay jàpp ni tey yow yaa aye euh, sa sens la moo waral tey nga gañe ko tey nag ñu bëggoon waxtaanee ci lutte simple boobu wax ñaata journée moo fi am ñan ak ñan ñoo fi tëgg ak fan ak fan lañ ko tëggee euh, tey nag euh, lit simple bi mu ngi def quarante trois journées quarante trois journées yi mu ngi def ci soixante quatre gala soixante quatre gala yooyu teg nañ ci quatre vingt et un millions quatre vingt et un millions ak cent cent six nag cent six nag lañ teg euh, Adrien Senghor teg na seize million trois cent moom la Adrien Senghor teg ci dix sept journées Euh, terrain gaal gi ñu ngi fa tëgg sept journée sept journée yi ñu ngi fa teg treize millions deux cent euh, arène nationale benn journée moo fa am suñu papa Jax production moo ko tëggoon teg dix millions euh, le roi des arènes wala l'ancien roi des arènes Yaxya Diop ni tëgg na trois journée trois journée yi teg na ci neuf millions moom Yaxya Diop ni am ci koo xamante ni làmb ji ren lutte traditionnelle bi bàyyi nañ ko xel bu baax a baax a baax muy Émine François Gomis muy franc moom mi nga xamante ni euh, journée yi njëkk bi mu ñëwee euh, da ko jël daan xale bi nga xamante ne mooy Serigne Ndiaye 2 bu Fass dem final am kii di euh, dem final am Cheikh Tidiane Niang daan Cheikh Tidiane Niang fële ca arène nationale mooy première sortie bi nga xamante ni bi mu jugee États-Unis moom la def moom franc mu teggiwul tànkam ba tey dem na ci fi nga xamante ni mooy journée cinq millions yi nga xamante ni association des promoteurs ñoo ko tëggoon fee ca stade Diop Iba Mar Diop moom Emine François Gomis moo fa daan kii di booy fay jël final ba ñu demati fële ci journée Yaxya Diop ni bi nga xamante ni moom la tëggoon fële ci mbuur moom moomee tamit Emine François Gomis moo daan kii di Aada booy Bawal jël final bi euh, mu doon xale boo xamante ni làmb simple ñu ngi koy bàyyi xel waaye mu ngi def làmb ju am solo ci bëre dóor bi moom ak yeneen naataangoom ki nga xamante ni moom it bokk na ci journée yi cinq journée yoo xamante ni bi ñu enchaîné ci saison bi ubbi moom moo ko jël muy Serigne Ndiaye 2 bu fas Coréas moom moo doon xale boo xamante ni fi mu toll nii euh, du ma ne moo téye làmb simple bi mais bokk na ci ñi ko téye ñoom daanaan yooyu ak yeneen xale yi nga xamante ni tey compétition bi mu ngi jot mais ñu ngi jël euh, Biram Kunkum Caaka Fay moom it kenn du ko bàyyi xel kenn du ko fàtte. moom ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax moom yàgg na ci làmb simple bi te mu ngi ciy def liggéey bu mucc ayib moom Biram Kunku maa ngi fàttaliku tàkkusaan bi nga xamante ni ci terrain gaal gi daan na fa booy fay maa ngi fàttaliku tàkkusaan bi nga xamante ni ci Adrien Senghor daan na fa l'an 2000 moom moomu Biram Kunku nga xamante ni fi mu toll nii làmb ñu ngi koy bàyyi xel parce que dafa am beneen façon bëre boo xamante ni gis nañ ko ci moom moom caaka façon bëre boo xam ne gis nañ ko ci moom te bëre boobu fii mu ngi koy bëre dina naqaree daan ci làmb ndax caaka bu njëkk bu ñëwee dajeeg yow euh, dala daan forcer euh, forcer li muy forcer ba ñàkk mais léegi dafa ànd ak teey boo xamante ni ànd ak dal boo xamante ni ànd ak bëre bu wóor boo xamante ni tey compétition yëpp yi ci ëpp bi mu génnee moom caaka fay euh, dafa jël final yi perte benn ci digganteem mook booy fay Euh, am beneen xale boo xamante ni tamit bàyyi leen ko xel fekk naa ko fii di Adrien Senghor mu daan assurance bu mbuur muy fils de Badlen fist de Badlen moom it mu ngi génn ci compétition yi di def liggéey bu mucc ayib moom it mu ngi compétir comme ay rakkam mu ngi compétir comme ay moroomam mu ngi compétir comme ay euh, ñi nga xamante ni jàpp na ni fa la fa la bokk ci natango boobu la bokk muy mbër yooyu ñuy tudd mbëri mag yi ñu bàyyiwaat xel ci keneen koo xamante ne muy l'an 2000 l'an 2000 ñëw na waaye bi mu ñëwee ñaari sortie la def ñaari sortie yooyu daf ko ñàkk benn bi mu ngi ko ñàkkee ci fi nga xamante ne mooy terrain gaal gi booy fay moo ko daan beneen bi mu ngi ko ñàkkee fi nga xamante ne mooy Adrien Senghor caaka euh, fay moo ko daan moom l'an 2000 moomu depuis boobu ba léegi gisaatuñu ko wàccaatul ci lamb simple yi xëy na dafa am lu muy waajal wala dafa am lu muy defar waat ak loo xamante ni moom yaakaar na ko ci làmb ji euh, keneen ñu waxtaan ci moom ku mel ni euh, général bu Malika général Malika moom it doon na koo xamante ni fi mu toll nii làmb simple bi doo tudd ñett mbër doo ko ci boole ndax lan dayo ba ndax bëre ba ndax euh, mën bëre gi ci moom moom général Malika tey nag saison bi bi mu commencé ba tey donte gisaguñ ko mu def sorte ci lutte simple bi xam naa ni nag ñàkkul muy waajal combat mook Fils de Balla moo waraloon euh, ñàkk ñàkk a teew bi waaye ñëw na ci làmb ja tuus euh, ci drapeau boobu nga xamante ni moom lañ tuddee woon Ndeye Guèye ñëw na fa tuus bàkk wane ni jabaru mbër moom lañ tuddee drapeau bi moo waral général Malika ñëw fa wàcc ci ànd ak euh, papa booy jinne moo koy nuyu au passage wàcc fa def fa liggéey bu mucc ay bàkk fa bàkk yu neex macha allah nga xam ni xale la boo xamante ni gëm na làmb moom général Malika xale la boo xamante ni am na fu mu teg làmb bàyyi leen ko xel bu baax a baax a baax mu ñëwaat ci xale yi nga xamante ni tamit ñu ngi ci ba tey ma tuddaat beneen mbër muy Cheikh Tidiane ñaa Cheikh Tidiane ñaa compétition yi bi mu commencé bari na ci compétition yoo xamante ni moo ko jël jël na terrain gaal gi finalu na adressé nga 10 millions yi jag si te it Cheikh Tidiane Niang war nañoo taxaw seetlu ci moom Cheikh Tidiane Niang boo ko gisee ñi ngay tudd ñooñu ñëpp ci ponkal yi ñoo ko ñoo ko ëpp dayoo mais ku ku ci jàppanteek moom jox ko cër bi mu moom ci làmb li ko ko may nag mooy li may Modou ba mu doon roi des arènes mooy fullaam mooy faydaam mooy am jomam mooy mën a bëreem Cheikh Tidiane Niang dafa mën a bëre macha allah Cheikh Tidiane ñaa bu dugg see ci làmb nga xam ne direct séeréer mooy daw ci yaramam bu dugg see nga xam ni kii mbër la champion la Cheikh Tidiane ñaa moomu nag bàyyi leen ko xel ci làmb am na ci yeneen xale yoo xamante ni tamit euh, ku lim doo juum waaye da nga dul matal parce que mënoo lim ñëpp mais am na ci yeneen xale yoo xamante ni tey euh, war nañ leen a bàyyi xel am na ci xale boo xam ni dafa ma bett bi ma ko gisee ci làmb ji mu dugg si yaakaaruma ni woon ni bëre bi toll na foofu muy benn xale boo xamante ni ñu ngi koy wax tas yaakaar tas yaakaar xale la boo xamante ni xale bu mën a bëre la Euh, moom moom tas yaakaar bàyyi leen ko xel bu baax a baax a baax moom mu ngi ñëw ci làmb lutte simple yi di ci compétir di def comme ay moroomam di waxtaan ci ñi nga xamante ni mooy xale yi parce que man wax dëgg lépp loo mën a dégg rek mooy xale yi nga xamante ni euh, dañuy ñëw ci làmb simple bi di ci ñàkkante di ci wane seen bopp di dajeek ay mbër yoo xamante ni ay mbër yu mag lañ di ci wane seen bopp kenn ki mooy ngóor ñaax ngóor ñaax bàyyi leen ko xel xale la boo xamante ni macha allah xale bu mën a bëre euh, di keroog arène nationale dix million yu jag si moom moo jëloon lese bi moom ngóor ñaax mu doon xale boo xamante ni bàyyi leen ko xel ci làmb am na beneen xale bu nekk parcelle muy Saara Saara tamit euh, ñëw na euh, ci compétition bi amoon Adrien Senghor mu finaalu perte finale bi mais Saara dama koy gis chaque jour mu ngi am gëm-gëm bi chaque jour mu ngi wane boppam chaque jour mu ngi ñëw ci compétition bi di compétir donte mu ngi dem ba ay quart de finale ay demi finale ay finale di ñàkk bu njëkk boo daan toogee première tour tey nga ñëw ba yegg quart de finale daanu xel mun naa dal nga dem ba yegg demi finale daanu xel mën naa dal nga dem bay mujj di finaalu xel mun naa dal kon Saara fi mu ko teg foofu la bul bàyyi benn yoon nekk ci bu baax a baax a baax dina baax Euh, am na tamit beneen xale boo xamante ni euh, bàyyi leen ko xel muy ndambe ndambe xale la boo xamante ni bu dugg see ci lamb simple buy fecc dangay gis yaram bu dégg bi dangay gis fecc gi muy fecc da ngay gis bu baax a baax a baax xam ne kii mu ngi dund dëgg dëgg dëgg dëgg làmb moom ndambe mu doon xale boo xamante ne xale bu mën a bëri la xale bu mën a bëre mu ngi noonu damaa bëgg ñu bàyyi xel bu baax a baax a baax ci xale yooyu nga xamante ni tey jàpp nañ ni bu ëllëg ëllëgu làmb ci seen loxo la nekk Tony Junior bu leen ko fàttee Tony Junior nekk na xale boo xamante ni moom it macha allah fa tabaaraka keroog bi mu finaaloo ak euh, bi mu demee demi final fële ci journée suñu papa Yaxya Jóob Yékini fële ci Mbuur moom moo demoon euh, demi final digganteem ak Aada booy Bawol Aada booy Bawol daan ko. mais Tony Junior mu ngi ñëw ci compétition yi mu ngi jël mu ngi wane bëreem mu ngi wane talaam mu ngi wane jom ak fulla ak fayda ci biir bëreem moom Tony Junior am koo xamante ni euh, daan nañ ko gis diggante daaw ak daaw jéeg euh, muy wane boppam ren ñu gis ko ci compétition yi euh, waaye résultat bi muy indi baaxul muy góor a soog góor a soog ci compétition yi daan na wane boppam mais ñu dem ba gisatuñu jëmmi góor a Sock xamuñu nag lan moo ko waral euh, te ñi muy bëreel ñëpp daanaka ay moromam lañ ci làmb ay nattaangoom lañ ci làmb te ñoo xamante ni euh, day bëre di ñàkk xëy na nag li am solo mooy wax na ko nee na compétition bi moom yàlla suñ borom moo dogal ngay jël waaye moom li ëpp solo ba ëpp njariñ mooy muy ñëw di compétir comme ay moroomam Grand Mbagnick Grand Mbagnick bu leen ko fàtte Grand Mbagnick champion la moom it macha allah mu ngi ci làmb simple bi di ci def liggéey bu mucc ayib moom grand Mbagnick euh, bu leen fàtte tamit kii nga xamante ni mooy Doudou Sané Doudou Sané bàyyi leen ko xel euh, moom mi nga xamante ni bëri na benn combat ren ci ci arène nationale wane fa boppam waaye lit simple yi mu fay wane boppam boo gisee ña aller retour bi diggante boog booy fay jar na lu ne. mu daan booy fay fële euh, booy fay daan ko fii nga xamante ni mu ngi compétir mais Doudou Sané xale bu mën a bëre boo gisee keroog euh, euh, arène nationale journée Jax production bi Cheikh Tidiane Niang moo ko daan dem final mais du Sané bàyyi leen ko xel bu baax a baax a baax baax ci làmb moom nekk na koo xamante ni macha allah mën na bëre booy fay kenn du wax talentam ci làmb booy fay ñu ci bari. doon nañ jàpp ni début làmbam da daan fowee làmbam waaye fi mu toll nii dafa mel ni am na fu ko làmb jaral am na fu mu teg làmb am na fu mu bëgg a dem ci làmb ba waral booy fay dëgg-dëgg booy fay ñu ngi koy gis diggante bi mu jógee Maroc entraîné ji dem ñëw préparé wàcc ci lutte simple yi mu wàcc yépp bu jëlul final ba day finaalu kon mu doon liggéey boo xamante ni liggéey la bu mu liggéey mais liggéey bu mucc ayib la ngel jonn bu leen ko fàtte moom it Ngel champion la boo xamante ni moom it euh, ñëw na ci compétition yi ma ngay wane boppam ma ngay def li nga xamante ni mooy ay preuve am ci làmb simple moom Ngel jonn kenn du ko présenté Libidor moom it mu ngi wàcc si ñu ngi koy gis mu mu nekk koo xamante ni macha allah euh, donte ñëw na ci compétition yi finaalu Gaskel Diame euh, xale la boo xamante ni euh, finaalu na fële ci Adrien Adrien diggante digganteem ak digganteem ak ki nga xamante ni mooy Libidor ñu bëre ñoom ñaan mu daan ko final Gaskel Diame ordinateur borom àll bi lañ ko tuddee ordinateur bàyyi leen ko xel moom it parce que du koo xamante ni euh, làmb simple dina dina ci wane dina ci wane waat wala kenn xamu ko ci làmb simple ordinateur képp ku dugg ci àll bi xam ne moom mooy borom àll bi loolu képp kuy mbër nangul na ko ko moom ordinateur bu leen fàtte Toubacouta Toubacouta nga xamante ni macha allah ba mu koy gis ci làmb euh, taay bi ni mu toll da ngay xam ni kii champion lay doon am na yu mbër bi am na euh, doole mbër bi euh, sëñ Bas mu ngi may wax ci diggante bi nga xamante ni bëri woon na ko ak euh, kii nga xamante ni mooy Doudou Sané fële ca ca ca Passy ñoom ñaar ñu bëri fa combat boo xamante ni ndeysaan tuq sa bënn saañ ba réer la ñoom ñaar ñoom dër bi la ñoom ñaar moom seen làmb moo raw Barça Real ñoom ñaar muy Toubacouta ak Doudou Sané bu leen fàtte Ibou Ndiaye ëbbali mbokk yi ëbbali doon na mbër boo xamante ni moom it am na fu ko làmb ji jaral moom it am na fu mu teg làmb parce que Ibou Ndiaye ëbbali gis naa ko ci cinq millions ba ko booy fay di éliminer euh, fekk naa ko ba muy éliminer général Malika fële ci adresse euh, terrain gaal gi moom Ibou njaay ëbbali fekk naa ko mu muy bëreek ay ndaanaan yoo xamante ni ci làmb mu ngi wane boppam moom Ibou njaay ëbbali kon léegi lii problème bi mooy Euh, amuñu problème mu mbër yoo xamante ne dañoo mën a bëree déedéet parce que boo tuddee Ibou Laay Ibou njaay Obali xam nga ni sampion la ci làmb parce que ma koy nuyu au passage am na wax joo xamante ne ki ko wax ci làmb du ku ndaw mu Yaxya Jóob Yékini euh, biñ ko laajee yan mbër nga gis nii fi mu toll nii war nañoo mën a doon révélation ci làmb euh, am nga yaakaar fi nga tegoon sa tànk ci làmb nga teg ko fa mu ne boo bu sàgganewul boppam caaxaanewut làmb Ibou Ndiaye Obali mun naa doon sampion ci làmb loolu nag du loo xamante ni da ko wax rek Ibou njaay day doon champion déedéet li tax muy doon champion moom moo koy liggéeyal boppam chaque jour damay dégg mu naan maa ngi dem entraînement chaque jour mu respecté entraînement yi waaye bu ñëwee ci compétition yi tamit dañuy gis ne xale bi mu ngi ci état de forme boo xamante ne bu mucc ayib la Oninga bu parcelle mbooloo moom it xale la boo xamante ni bàyyi leen ko xel Oninga moom it mu ngi ñëw ci làmb yi waaye mu ngi wane boppam Oninga gis nañ ko ci sorteem yi mu def euh, ñàkk waaye dafa dafa toogoon lu yàgg ñëwut ci làmb simple moom Oninga ma laaj ko lu waral loolu mu ne ay mbokkam ñoo ko téye mbokk yi ñoo ko téye mbokk yi ñoo ko bàyyi mais diggante biñ ko téye ak bi biñ ko bàyyee dafa xaw a yàgg te nag mbër boo ñëwee ci làmb simple gëj a compétir c'est trop normal nga bëre di daanu parce que da ngay perte repère ci làmb looloo waral ñu naan mbëri tout le temps di leen compétition di leen compétir di leen wane seen bopp de leen ña mbokk yi mu doon loo xamante ni tey làmb simple lañ doon waxtaanee dugg nañ ci xale yépp waaye bu leen fàttee ni am na ci xale yoo xamante ni ci biir xale yi ay ndaanaani làmb lañ am na ci ñoo xamante ni ay ponkal lañ ci làmb mais gisuñu leen te jot na am mbëri yoo xamante ni dañoo war a ñëw ci làmb simple bi rëg-rëg problème mu rëg-rëg ci làmb simple li xamul lan la rëg-rëg da ngeen jàpp ne yéen askan bi ñuy seetaan ci wasaare làmb mat na mu bàyyi làmb simple bàyyi xale ay rakkam wala ay moroom ñu continuer ci compétition bi wala jar na rëg-rëg muy compétir ci ñaari wàllu yëpp di compétir ci bëre dóor bi di compétir ci bëre simple bi parce que rëg-rëg doon na mbër moo xamante ni ñëpp dañ ko doon séentu rek ci lit simple bi waaye gisuñu ko benn yoon kon tey bu doon bu doon dara la mën nañu njuy nañu bari ci làmb te dugg si rëg-rëg ci làmb dafa neex dugg si rëg-rëg ci làmb dafa am xorom rëg-rëg bu dugg see askan bi ñëpp jóg mais bu leen fàtte euh, am na ci beneen xale boo xamante ne mu ngi nekk écrit sumba jum ñu koy wax bébé jéen bébé tamit mu ngi def liggéey bu mucc ayib ci làmb simple yi mais moom it gëj nañ koo gis gëj nañ koo gis mu wàcc si te euh, war naa mën di wàcc si comme ay moroomam war naa di wàcc si comme ay naataangoom euh, am na ci xale yoo xamante ne làmb da leen a bëgg ñuy wàcc tout le temps di wàcc si ndax nag euh, ngay wàcc si ci làmb mooy waral boo duggee ci bëri dóor bi combat bi day yomb ci yow gisoo Cheikh Tidiane bu dugg see ci làmb bëri dóor day jàpp ni combat bi dafa yomb trop trop trop parce que benn combat la li mu xam mooy 64 litres bindu muy bëree di daan di bëre di daan ba dem final boo xoolee keroog euh, Doudou Sané combat bi arène euh, arène nationale combat bi dafa yomb ci moom parce que jàpp na ni moom day bëre plus de soixante quinze yoo xamante ne dañuy bindu muy bëre di daan di daan di daan ba dem finaal kon bu amee benn combat arène nationale day yomb ci moom booy fay lan mooy problème am ñu ngi koy gis ci bëre simple bi ma ngay compétir mais bëre door bi ba tey gisuñu ko ci ñu koy séentu ci wàllu wépp am na ci yeneen mbër yoo xamante ne pourquoi par ñu ñëw bëri si ci bëri dóor bi am na ñoo xam ne ñu ngi doon ñëw euh, te gisatuñ leen ku ci mel ni Pape Ndoye Pape Ndoye am na ci compétition yoo xamante ni moom moo ko jël moom Pape Ndoye euh, waaye gisatuñ ko ci làmb simple yi war naa war nañoo mën a ñëw pourquoi pas ku mel ni Garga 2 war naa mën a wàcc ci ci làmb simple yi wane boppam ay moroomam ñoo fay bëri ay naataangoom moo fay bëri. ay xale ni ñoom ñoo fay bëre pourquoi pas Garga 2 ñëw wàcc parce que boo ñàkkee fii am fële dalay gën a may compétition day tax nga gën a mën a wane sa bopp pour pourquoi pas tey lagros wàcc ci lutte simple bi dadul yomb parce que boo ko waxee ñu ne non loolu kat du yomb waaye damaa xam ni mbëru simple yi ñu ngi nax ñenn ñi ci mbëru bëre dóor yi parce que tey li nga mën a teg la ci semaine euh, kàggu tey benn semaine jot nga dem simple am trois cent mille xëy dem finaalu am un million ñu dawal deux jours trois jours semaine bi jotaat nga finaalu am deux million finaalu am quatre millions finaalu ñu teg cinq million nga jël ko loolu yëpp boo ko xoolee mise yi ñuy teg yëpp bëre simple bi fi mu toll nii li mu génnee ci xaalis bëre dóor bi génnewu ko xam nga ni loo xamante ni saison bi li muy gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt bëre simple bu demee bay génnee euh, cent quatre-vingt Euh, quatre-vingt quatre-vingt-un millions mu génnee ko ci saison bu gàtt bi ah quatre-vingt-un millions nga génnee ko ak cent six nag ci ci quarante quarante-trois journées ngay xamante li traditionnel bi mu ngi dox mu ngi dox bu baax a baax a baax kon nañ leen ci gën a jàpp mbokk yi bàyyi ji li ngeen ci àndaloon ci jàngat làmb ñu doon fas yéene rek di wax ñi nga xamante ne yaakaar nañ leen ci làmb simple bi yaakaar nañ leen ci làmb dóor bi am nañ ay cër ci làmb ñu ngi leen gis ñuy compétir mbokk yi ku ñu tuddul ñoo ngi jéggalu bu baax a baax a baax nga xam ni euh, ku lim doo juum waaye da dul matal parce que bëggoon nañoo lim ñëpp waaye wax dëgg bëggoon nañu am na ci ñam tamit ñeneen xale yoo xamante ni ay xale yoo yu yu yu ndaw lañ di jóg di compétir ci léger bi mais ñu ngi def seen wàll ci ci ci ci ci làmb simple waaye kon su ma tuddee Saara euh, tudd Tony Junior Euh, tudd yeneen xale yi yóbbaale na ñëpp kon ñu leen di jéggaluwaat bu baax a baax a baax encore une fois gis nañ bëgg bi ngeen bëgg wasaare làmb gis nañ safoo bi ngeen safoo wasaare làmb la ma leen doon wax rek doolay jën ndox doolay waykat public doolay wasaare làmb yéen la suñu mbokk internet yi ba ëllëg incha allah ci beneen jàngat làmb jërëjëf kaabu la cadreur des cadreurs yaa fi le